mi ngi ak ñun ci bu mu jokkoo bi monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM. Euh, maa ngi lay fay di daal mbégte waxtaan ak yéen di nuyu auditeurs yi nga xam ñu ngi déglu yëpp. Mm-hmm. alors euh, élection législative yi gën a fës ci actualité politique bi lëmbee réew mi euh, justement ban jàngat nga def ci coow lii ne cobboy ci dépôt liste yaak euh, coalition yaak ñoom seen waaw mën da ñàkk xam nga politique moom dafa ànd ak loolu àddina mooy doxee noonu waaye na lépp rafet rek na lépp rafet parce que nit ki ak lu mën defet na ko teg ci ngor rek ak ci ci ci fula ak fayda boo ko defee rek jàmm am hmm. euh, ma am maanaam bu dee ne nag euh, li ngay junj mooy coow li nga xam moo am ci bii euh, waaye yeewi yeewi la defe naa ni di hmm. seen liste yi fii ci Ndakaaru ah loolu dafa nekk loo nga xam ne moom ku ci wax kenn ku ci tudd kenn rek ku dul ñoom ñoomu neen rek da koy tooj da nga jàpp ne ñoom waaw ñoom ñoo jum ñoom ñoo ñëwante lu rëy rëy rëy sax xam nañ ko ñoom ci seen bopp sax yéen tamit hmm. c'est-à-dire que man dama xamul aussi naka ngeen di mën a déggee ñoom ñu seq yëf yi ci seen biir bu ñu waxee nga dégg yow ci sa bopp nga xam ni ñoom xam nañ ne ñoo juum parce que dépôt liste dafa am jamono boo ko war a def nga déposer say liste dem dem ba mu yàgg nga dellu siwaat gis ne xëy na def nga erreur nga ñëw indi bataaxal ni dama bëgg changer am na ñaar ñoo nga xam ni ou bien am na kenn koo nga xam ni dafa bàyyi dama ko bëgg remplacer te loolu code électoral prévoir ko fenn ñaari ka ñaari cas nga am yoo nga xam mën nga remplacer nit ku nit mooy ki nga xam ne dafa faatu ba bañ ñu subal élection ci minuit ku faatu mën nga ko remplacer. Hmm. bu dul loolu mooy ki nga xam ne dañ ko def ci liste yi ñu dem ba ci ñu gis ne bisu élection taxul du tax ay atam mat walla tëjoon nañ ko tëj boo nga xam ne tax na ba warul mën a nekk ci liste ba mbaa en tout cas dina am lenn lu ko tënk loo nga xam ne tax na ba moom warul mën a nekk ci liste amul beneen cas xam nga coow li jarul bari. Mm-hmm. bu fekkee ne am na benn cas bu code électoral prévoir nañ ñu ne article bii kat moo wax ne saa na la neexee mën nga ñëw remplacer loolu amul coow parce que lu ci nit di wax dara la article bii moo ko moo ñu tënk ñun ñëpp. man nag xëy na chance bi ma am mooy non seulement yàgg naa ci politique bi mais bi ñuy taxaw de ja def dialogue bi bokk naa ci ña ko doon def kon xam naa la nga xam ne moo nekk ci code ba mais nag mënoo def sa erreur bopp ba di ko tuumaal ñeneen. ah nee nañ loxo loxo loxo yi loxo waa pouvoir bi moo nekk ci ginnaaw dañoo manipuler liste yaak loola gëmuloo ne mën naa nekk. <laughs> xam nga loolu ne dañoo manipuler ay liste euh, li ñuy wax ni euh, euh, ñàkku lay du tee lay. parce que il faut que ñu leeralal askan ni booy ñëw di déposé liste dafa am condition bu matul mënoo déposer liste direction générale day toog Sénat day toog parce que Sénat arbitre la société civile dañ koy fekkee dañuy toog bu ko defee yow boo ñëwee déposer sa liste da ngay jox direction générale euh, benn benn copie jox direction générale benn copie te benn copie waaw bu fekkee ni jàpp nañ ñoom dañ ko jalgati ñoom nañu génne wan sénégalais yi copie ba ñu déposé woon ñoom bañ yor bañ ñu kon mooy bu baax bi nañ ko wane wala ñu ne Sénat génneel bi nga yor bu boobaa danañ xam ndax loolu méngoo na ak bëliwul leen ensuite nit dañ ko jalgati ba pare yow yaa ñëwoon pour remplacer kon nga xam nga ni jalgati am na wax yoo xam ni il faut ñu respecter quand même sénégalais yi mm-hmm. ñëw ni a ngay remplacer ñu la mënoo remplacer nga soog a wëlbatiku ne dañ ko jalgati kon kay loolu wax dëgg yàlla yanuwul maanaam njuumte itam ñu ne am na ci limu parrain yi waa Benno Bokk Yaakaar déposé bu ñu sukkandikoo ca la daloon Malick Gakou ndax euh, loolu itam jàppoo ne euh, xëy na manquement la ci boor yi Benno Bokk Yaakaar xam nga xam nga li olof naan picc mu lakk bopp day bëgg morom <laughs> te du man dong bokk ma ci ku gën foofa amul benn njuumte xam nga élection saa bu jàllee hmm. ni parti politique yi toog di jàmbar noonu la ko direction générale di defee keneen ak keneen defe ko noonu ndax li ñuy doxal nii du lu jóge ci yàlla du alxuraan du bible ay doomu aadama ñoo koy bind. Hmm. kon bu ñu defee dara ba génn ci danañ seet ah waaw ñun nangam lii amoon est-ce que mën nañ ko yokk mën nañ ko gën a defar wala dee ma fàttali ni bu ñu jàppee datu élection yi te loolu président moo ko jàpp par décret. Hmm. loolu la ko loolu la ko yoon may bu ko jàppee ba pare. ministre de l'intérieur ci lay soog a tëral yeneen charte yi nga xam ne moo ciy ñëw nga gis ni le 27 avril le ministre jëloon arrêté loolu mën nañ ko vérifier fu la neex le 27 hmm. avril arrêté numéro 00 85 25 85 25 du 27 avril 2022 xam nga boobu déposé gu ñu liste. Hmm. ca ñu def arrêté boobu tenir compte ci loolu nga wax wax ni boo ñëwee déposé liste li li code électoral bi laaj ci parrainage li mu gën a néew nangam la mais suñuy jël di jël di jël ba egg fa nga xam ne la soxla woon fa la yem leneen lu ca topp duñ ko considérer li ñuy wax tubaab li tubaab naan nul et non avenu maanaam zéro la existé wul kon bu la neexee nga yóbbu deux millions de parrainage bu code électoral ñoom parce que ku nekk yaay tëral structure bu ne yaay tëral nan ngay càmbare say parenage xëy na boo demee conseil sa neneen la ñu tëral mais ñun nekkaguñu ci kaawu conseil constitutionnel kaawu direction générale des élections la ñu nekk ñoom arrêté ministre moo wax ni boo jëlee nombre de parrainage yi ñu soxla lépp lu ca mën di topp doom duñ ko considérer parce que jël nañ li ñu bëggoon jeex na loolu lu leer la te loolu depuis le 27 avril lañu jëloon arrêté boobu kon bu ñu toogee ba léegi coow am ñu bëgg ne lii daloon na parti socialiste euh, daroon na. Euh, Malick Gakou Malick Gakou mais bëgg indi aw lay la rek mais loolu xam teguñu ko fenn. parce que arrêté bi ñu wax ñoom am nañ ko xam nañu ko xam nañu la ca nit daal dama bëgg boo defee erreur te loolu la la Sénégalais yi di nawee boo juumee da ngay nangu ni njuumte la dégg naa sax kenn ci ñoom kenn ci seen mandataires yi. Mm. bi ñu demee ba càmbar affaire parce que ñoom nee nañu dafa am seen seen consultant juridique moo leen waxoon ni bu ngeen tegalee euh, liste bi noonu dina baax. Mm. ba mu toogee direction générale des élections seen mandataire boobu ba mu ko waxee direction générale dañ ñu ko woon ñu. sa euh, ju sa juriste boobu bëgguma tudd turam biñ ko woowee def téléphone bi moo libre mu waxaw a wax a ba pare direction générale de élections benn wax lañ ko laaj. Hmm. li nga wax nii ci ban article code électoral la nekk léegi ñu appliqué ko mun leen xaw ba ko kon amut. kon daal su ma la déggee mbiru cuune la waa yeewi def. ah ma ne su ma la déggee daal mbirum cuune moo daal euh, waa yeewi. ah mbirum cuune la wala wala muy maa tey man nag mënuma xam lu ci ne may li wóor mooy daal lay mbir mi daal ca ñoom la soit dañu juum def ko wala dañ ko def pour éliminer un adversaire ban ci la mënuma ko xam mais li wóor mooy lu ci mën di am ci ñoom la. ci seen biir la féete. ci seen biir la féete. Mhm. kenn ku ñu tudd rek dañ la tooñ. d'accord waaw alors parce que nag bu fekkee ni Macky Sall man na tëdd ci palam bële. Mhm. yeewu dajaloo defar seen liste. te yéen ñëpp dégg ngeen coow la ca am. ba gis ngeen ay leaders yoo nga xam ne génn nañu bokk ci vraiment yéen sax da ngeen a bëgg a sonal yi <laughs> parce que ñoom ñi moom seen bopp dégg ngeen Cheikh Bara Dolly génn wax ci dégg ngeen juróom-ñeenti leaders yu bokk ci seen biir génn wax ci dégg nga ñeneen ak ñeneen ci plateau de télévision yi kenn ku ci nekk wax ni ñun ñoo def erreur parce que dañoo déggoowuloon ci suñu biir waaw ngeen bàyyi fa loolu lépp bëgg naa lu ci Macky Sall def. waaw wax contre wax la rek ndax ñee nee nañu ñoom tamit euh, complot la xëy na tey bu Déthié Fall génnee wax ak euh, journaliste yi dina ci lu gën a leer waaye wax ak wax la rek. Euh, ñu ni waaw xam nga mm. bu dee wax ak wax rek. Mm. wax day tungoom seede. <laughs> bu doon wax ak wax rek boo demee tribunal kenn du la àtte waaye da am sam xel yàlla may la ko ngay xalaat. bu diw waxee nangam diw wax nangam di nga xam lan moo ci di dëgg ak lan ci amul. waaw nañu xaar nañu xaar preuve yi génn. <laughs> preuve yi kay génn na preuve yi kay seen borom wax nañ ko. d'accord mais toog di def nee ñu ñun ñoo doon xuloo. Hmm. ñun ñoo jubawul woon. ñun ñoo def lii ñun ñoo def li ñun ñoo def lii l'aveu la mère des preuves ban preuve ngeen bëggati. ah xanaa kay dañuy da ngeen bëgg a waxtaanu waxtaanu waxtaanu neex rek waaye <laughs> gannaaw ñu ngi ay manipulation kay ma le ministre ñoom itam nañ leen xaar man ñu ngi ciy tudd ay manipulation kay nañ leen xaar <laughs> <laughs> alors ñu ñu da bëgg a waxtaan rek aywa alors ñu ñu avancé wax justement ci mbiram mandat yi nga xam ne yow waxtaanee nga ko bu yàgg yëkkati woon ko fi euh, ñu waxoon ne Serigne Mbacké Ndiaye mandat ilmix lay plaidel ñu bari sax di laaj ndax jamono yi yow yooyoo noppi président Macky Sall ndax wax na itam lu mel noonu jamono yi ñu weesu euh, jàpp nga ni kon daal ñàkk limité mandat yi bàyyi askan wi ñuy tànnee nu leen neex loola mooy li mais loolu moo jaadu parce que xam nga dañuy wax ci tubaab ni le peuple est souverain maanaam askan wi dong moo am moo yor jaas yi dogal mais ki yor jaas yi dogal doo ko ni fii nga yem da nga koy bàyyi mu seet la neex mu dogal ko parce que ci am réew la ca am solo mooy élection di jaar yoon te loolu kenn werante du ko Sénégal 2000 fi la ñu fekk 2012 fi la ñu fekk yeneen ak yeneen ak yeneen fi la ñu fekk ba ci élection territoriale yi ñu génne wane parce que. bu pouvoir mënoon a mënoon a jalgati ay élection ba gagné Abdou Diouf du daanu Abdoulaye Wade du daanu Macky Sall du ñàkk Dakar du ñàkk Touba Mbacké kon loolu wane na ni alal taxul a gagné yor administration taxul a gagné yor armée police taxul a gagné peuple sénégalais mooy décidé comme xam nañ ni peuple bi mooy fal ko ko neex mais war nañ man nag ni ah attention comme peuple bi mooy décidé mais nañ ko bàyyi mu fal ko ko neex waaye dénk naa la li nga ma def doy li nga def doy na ma dolli naa ko gën na maa doy du ñu may peuple bi occasion mu continuer liggéey boobu loolu tegul fenn ñaareel ba loolu mooy principe bi ñaareel bi hmm. président bi ñuy fal fii ci suñu réew yi bokkul liñ koy sant ak président ya ñuy fal Europe président ya ñuy fal Europe defarloo wuñu leen ay tali am nañ ko defarloo wuñu leen chemin de am nañ ko defarloo wuñu leen port am nañ ko defarloo wuñ leen ay école am nañu ko institution mën naa lib lu bare bare bare fii ci suñu réew yi loolu yëpp dañ leen di ca doyut nga di ko sant nit te joxoo ko dépense ni ko demal lijjanti ci yor sa jabar xëy sa dépense matul wala yoro dépense moom mu dem di lijjanti nga bëgg ni ko par force midi da nga may tagal añ loolu mën mënta sotti kon bu fekkee ne suñu président dañ leen di bàyyi ni leen dem leen ngeen lijjanti ji ñu dem di lijjanti ji di indi kon xam nga ne seen responsabilité bokkul ak responsabilité président bi nekk Europe ñetteel ba ba 1989 kenn musul wax waxu mandat limitation de mandat en Afrique te boo demee ci réewu tugal yi ñu koy sant ñoom defuñu ko jëlal réew mu mel ne Allemagne Allemagne jëlal Espagne jëlal feneen ak feneen ak feneen tur yi mooy soppeeku ñun pouvoir bi ñu jox président ñee dañ ko tudd chancelier wala ñu jox ko premier ministre mais bu parce que ñoom bul fàtte ni seen président ya fa nekk. ñu ci bari sax amuñu président ay roi la ñu am ay buur la ñu am. Hmm. amul woote amul dara. la reine d'Angleterre ma nga ne làkk de téeméeri at moo fa ne boo demee Espagne buur baa fa ne moo fa ne boo demee Hollande buur la ñu am moo fa ne ainsi de suite kon fonction wu président de la république ñoom dañ ko jox premier ministre bu doon jox ko chancelier. Hmm. mais limité wuñu ko. saa bu doonee candidat peuple bu woteel ko day toogaat. pourquoi loola ñoom ñu di ko def ba pare ñun ñu bëgg ko tere xam nga dafa am fii suñu réew yi ñoo nga xam ni. Hmm. li leen li ñuy li leen di dundal mooy la tuwaab yi di wax ñoom ñu di ko jéem a nanguloo sénégalais bi te man dama bokk ci sénégalais xam doxuma ci loolu xam nga boo déggee benn cadre sénégalais wala ñoo nga xam nee nañ dañ yor ay organisation droit de l'homme xaw ma droit de l'homme mm. taxaw di wax naan njaayum yàmbaa dañ ko war a légaliser au Sénégal kooku xam nga ne xalaat boobu jógewul Sénégal <laughs> ay nit ñoo ko sant ay nit ñoo toog ci biti naa leen fexe leen ba Sénégal doxee nii doxee loola ñun d'accord ñu ci ànduñu ci donc xalaat ba ñu joxe woon léeg-léeg nit ma ne ma man kat dama comprendre li nga wax waaye lii nga wax ci laa am léeg-léeg nit woo ma ne ma dama ko mës a xalaat mais ñëwuma ko woon a wax. yow waxoo ceeg président Macky Sall. pardon. waxoo ceeg président Macky Sall. non mësuñu ci wax d'ailleurs jour bi ma ko jikkee wax am seen benn nattango rendre compte mais na ma ko waxee woon ak na ma ko waxee bokkul keroog ñu tase palais salle des banquets Maodo Malick Mbaye fekke na ko. président Macky Sall ba mu jikkee dafa ah non wax nag d' accord ba ci. ma ne ko mais président liñ leer lañ la wax mu ne noo dégg naa dama dégg ñu yaa wax ni mandat illimité ma ne ko suma wax loolu ci àddina kon moom ma xam ne déggul woon li ma wax xamul woon li ma wax. Hmm. mais munu ma munu ma munu ma évaillé si ci wax man ak moom. maintenant sama xalaat laa am keneen am bosam keneen am bosam pourtant da ngeen di gis tous les jours ay nit bindi ci presse bi di wax ni lii ma wax ànd lañ ci. Hmm. dañuy wax ni quand l'idée pénètre la masse elle force. Hmm. xalaat bu duggee ci askan day nekk doole. Mhm. te lii ma wax ni non limitation di nombre de mandats xaw ma tey lay doon xaw ma ëllëg xaw ma danaa fekke xaw ma boobee yàlla moo xam. mais ca la ñu jëm lool la ñuy defi parce que loolu mooy démocratie. ci Afrique alors très rapidement président Macky Sall jiite na yaa am na tey téeméeri at bu ñu la ne woon nga natt liggéeyam loo nuy wax. ci lu gàtt waaw téeméeri fan de bareegul. téeméeri fan mhm. waaw bareegul yàlla doon téeméeri at <laughs> <laughs> fan bareegul mais. Ah. Euh, rafetlu nañ taxawaay bi li tax ñu di ko rafetlu daf ko am lu jiitu muy nekk président union africaine. Hmm. firnde ji mooy gis nga guerre bi am Ukraine. Sénégal ak moom mi nga xam ne mooy président union africaine am ci taxawaay bu am solo. loolu dafa nekk parce que li ñu daan tàmm di gis mooy bu tëll amee rek nga gis Sénégal wala Afrique daw làqatu ci ginnaaw tubaab yi lu ñu wax maanaam Occident. Hmm. France ak ñi mu àndal lu mu wax ñu wax ko. or bi ñu gis nga ni Sénégal ak Afrique dañu taxaw am suñu position wu bopp. ba tax na Ukraine def ñuy woo Russie daf ñuy woo keneen ak keneen di woo lu ci seen xalaat pour ñu mën pour pour ñu mën a jubal loolu am solo la ma dégg aussi parce que maa ngi doon liggéey ci benn commission boo nga xam ne dañuy waajal Africité bu lay ab ci ci ci Kisumu lañ koy defee au Kenya. Mm. tous les chefs traditionnels d'Afrique préparé woon dajaloo pour sargal taxawaay bi nga xam ne président Macky Sall am na ko au niveau de l'Union africaine donc loolu mooy lu lu jar rafetlu. Mm. su ma sax tey jii. war na dajale fii ci Ndakaaru ministre yi nga xam ne ñooy ministre économie finance ci Afrique pour waxtaane ñoom ci guerru Ukraine bi ak Russie lan la indi ci koom te ko ci koom-koomu Afrique donc vraiment wane na ni am na ci taxaw yu am solo donc nit bu fekkee ni dañ ko dënk dara mu di ci góorgóorlu te turam taxul mais Afrique moo tax jàpp naa ne kenn ku nekk ci ñun ak parti boo mënti bokk ak xalaat boo mënti am war nañ mën a mobiliser au moins sur ces nga xam ne du question de politique politicienne muñ ko ci jàppale pour Afrique bëgg ko ne am tam Sénégal am ci manoori. jërëjëf Serigne Mbacké Ndiaye amoon nañu mbégte dalal ci matinalu mi FM tey euh, ñu yendoog jàmm jërëjëf. jërëjëf.